asalaamaaleykum mbokki Thiès ñu ngi nuyu ñëpp euh, ginnaaw bi ñu santee yàlla tey nag mouvement Siggi jot na si ndigal président Abdoulaye Dièye dañoo jugoon parce que xam na ni dañoo jëm ci euh, événement yu am solo muy les phases nationales bi nga xam ni Thiès moo ko war a organiser euh, te ku wax phase nationale aussi wax naturellement ODCAV bi nga xam ni ji organisation bi ici à ñoom ñoo koy yore ci kaw loolu nag aussi président tamit xalaatoon équipe yi nga xam ni. Euh, tey jii aussi dañ cee war a jànkonte nekk fii ci Thiès war a jongante ci phase nationale yi nga xam ne fa lañ jëm euh, li li tax sax ñu xaw a guddee tey suñu ñëw fii ci siège ODCAV de Thiès bokk na ci loolu parce que dañoo demoon ci AIC Jubo bu Cité Lamy jaaran aussi ci AIC ànd defar R100 doon fa yóbbu aussi contribution bu président Abdoulaye Dieye yaakaar naa ni sotti si la rek ak def si lépp ci njabootu ODCAV la euh, ginnaaw loolu aussi président xam ne aussi organisation bi ODCAV de Thiès aussi am ay charge yu des charges lourdes parce que ku ni phase nationale xam ni vraiment ce sont des lourdes charges mu ne nag comme ni mu ko daan defee comme ça ODCAV de Thiès dem ba bëgg dem ay partenaires lañ tey suñu partenaire lañ suba incha allah aussi dañuy ñaanaat yàlla partenariat bi daal di continuer mu ñëw nag envoyé ñu avec une délégation taw bi moom moo tax sax ñoom ñu ngi ci biti mënuñoo dugg ci biir euh, nit ñu nag nañ indi contribution euh, ci ci ci li ci ëpp solo nag daf ñu ñu bugguma leen sax ngeen leen di woo naan dama leen di recevoir damaa bëgg ngeen sol seen dàll dem ba ci ñoom dem leen seen frère moom moo apporté sa modeste contribution pour l'organisation des phases nationales loolu nag président euh, Ousmane euh, votre frère le président Abdoulaye Dièye du mouvement Siggi Jotna nee na il est de tout cœur avec vous ah, ci ci ci ci fànn bépp tey jii lii dorte gi la rek ñu ñëw apporte suñu contribution incha allah rabi comme ni ñu ko daan defee saa dañ continuer di accompagner euh, l'ODCAV de Thiès di accompagner aussi le monde sportif thiessois parce que dans cette situation particulière où nous sommes confrontés je pense que c'est très important événement yu mel nii ñu koy ñu ko ñu jëm ci ça va permettre un peu la population ñu décrisper un peu par rapport à la situation causée par la pandémie ak coronavirus bi nga xam ne xaw na tëj Sénégalais yi ñëpp jaaxle euh, ñëpp am ñàkkare xëy na avec euh, le sport dina nekk un moyen d'épanouissement pour la jeunesse permettre leen ñu am un nouveau pour permettre ay Thiès aussi tamit vraiment mu amaat benn suufu noyyiwaat ñun ñëpp ñu daal di bëgg mu nekk une fête et au finish ñu am une victoire pour une équipe thiessoise donc euh, président ce sont vraiment les mots du président Abdoulaye Dièye. dañ lay yóbbante suñu nuyoo ci président Abdoulaye Dièye si gi jot na di wax ni aussi li mu def nii bettuñu parce que c'est pas la première fois mais aussi promptitude du intervention bi parce que su ma juumul samedi. lañ demoon seeti ko exposé ko problème yi dimanche lundi bon bu réagir donc loolu je crois que nekk loo xam ni c'est parce que am na fu mu teg moment nawetaan mais aussi Thiès am na lu ko ñor parce que phase nationale yi ñun ñoo koy organiser mu nekk loo xam ni dafa bokkul ak yeneen phase yi fi daan am parce que généralement phase bu daan am da nga ko daan préparer un an avant mais daaw ñëpp xam nañu football ñu ndax mbas mee tax. ren aussi les gens n'étaient pas sûrs de jouer jusqu'au mois de mai ci la gis ne passe baa ngi commencé wàcc ñun donc nañu organiser phase ñu aussi mais on a le défi comment en essayant de mobiliser tous les Thiessois autour des phases parce a mis en place un comité local des phases nationales 2021 nga xam ne dafa dépassé ODK bu ñu nañ seet si les personne ressources parmi eux ñu xalaat Ablaye Dièye parce que yàgg naa dimbali maanaam surtout la zone une a de du président Ousseynou Diar yoo xam ni partenaire naturel la donc bu ñu demee seeti ko aussi exposé ko problème bi mu recevoir ci anam bi rafet waxatuñu aussi wax yu nit mën a dégg nañu dimanche au lundi je vais intervenir donc tey soo taxawaay bu leen ñëwee fii day corroborer wax yi nga xam ne moom la ñu waxoon. ñu war a recevoir nag après presque deux cent cinquante personnes que les treize régions du Sénégal mu nekk une fête boo xam ne sera fête du navétane sera fête de la jeunesse ñu bëgg aussi relever le défi teeru nit ñi teral leen jox leen ñu lekk ñu naan ñu wutal fu tëdd fu baax pour que bu ñu ñibbee aussi duñ ñu waa Thiès et que li xaloon di xalaat Thiès ci xat-xat bi ba indi ñu fi ñun ñu xam ne aussi waa Thiès mooy relever défi bi donc loolu aussi je crois que contribution bi président Abdoulaye Dièye def lu ci am solo important euh, du sax c'est pas la somme qui est pour ñun mais le geste ak la promptitude parce que am na ñoo xam ni tey yéen depuis ce matin yéen a ngi woote maanaam dama wax ni day ne day ne comme ni nga waxee dañu leen bu leen xaar ñu ñëw dem seet leen jox leen am na ñoo xam ne aujourd'hui ñu leen di wër pour jàppale ñu mais gis ne nekk problème donc yéen ngeen ñëw fekk ba suñu siège indil ñu lii je crois que c'est extrêmement important donc waxal président Ablaye ne ko li mu defal yëg nañ ko seet na suñu xol kontaan nañ ci te incha allah partout où besoin sera on va allah. je crois que démb rek soo leen dégloo déjà rajo yi le chargé de la communication François ñu ko doon wax te booba ñëwagu leen mais déjà mi ngi koy remercier parce que xamoon ngeen ni dinañ ñëw je crois que ça c'est extrêmement important di ñaan nag comme ni ñu ko waxee bu ñëwee ngeen ñaan aussi coupe bi des parce que euh, nous avons trois équipes enseignantes je crois xam ne parce que seeti ngeen leen mooy ASR 100 Selami ak Ngalab nous avons deux équipes euh, ak Mbour 1 ñëpp Thiès la di leen ci côté bi nga parce que aussi c' est important ñooñu suñu njaboot lañ soo leen ko deful ñun ñoo koy def donc soo leen ko defee aussi dafa am loolu xam moom ngeen ñu moom ngeen ñu teggil non seulement teggil ngeen ñu ASC yi mais aussi teggil ñu ustaat bi nga xam ne ñu jàppale ngeen ci xam ne ci la ñuy def donc vraiment euh, pour ne pas trop retenir la parole neel président Ablaye ñu ngi leen remercier mais yow aussi Massaer duñ ko duñ ko sonn di ko wax ñu ngi lay aussi la gërëm parce que aussi suñu la gisee parce que tànk yi dox bu teggee benn tànk teg fa sa bos donc loolu mooy wane ni aussi yaa ngi koy jéem a topp yaa koy jéem a roy. dañu am fierté ñu wax ñu yéen jiite délégation bi ñëw Cité Lamy te président Ablaye Dièye envoyé ko euh, di siggi jot na envoyé ñu pour ñu ñëw sunu koñ ñëw sunu équipe pour jàppale leen. loolu yaakaar naa ni ku amul fierté ci loolu looy am fierté xaw ma ko ndax nga dëkk ci koñ koñ ba am ASC ASC bi yàgg doxal xëy na yow sax sa dërëm mus cee dugg ñu xëy suba nga bokk ci benn mouvement mouvement bi yëg ni ASC bi dafa euh, war a dem phase nationale président Ablaye Dieye ci mouvement bi nga bokk ni dafa bëgg a def benn enveloppe appuyer leen pour jàppale leen pour que vraiment seen phase nationale jaar yoon yaakaar naa loolu moo ñu fi indi tey délégation bi nag euh, man maa ko jiite mais pour wan leen nekk importance bi ñu am pour ñëw fii ak yëg bi ñu am pour mën a ñëw fii ba ñu ñëwee aussi dépaysé dépaysé wuñu ñu ñu xam lañ fi fekk ñu ñu miin lañ fi fekk sunu koñ la ñu ñëw mais président Abdoulaye Dièye dafa wax ni. lépp lu mu yëg nii doomu Cees mi ngi ciy yëngu lu mu ca mën a jàpp da koy jàpp même lu mu mënul sax dana ko jéem pour jàpp ko Koutaay Fall tamit bokkoon na ci ñu waroon bokk ci délégation bi mais dafa excusé wu parce que dafa xaw a pali loolu moo ko téye mais moo doon coordonné lii yëpp pour mu taxaw donc euh, euh, ñi ngi leen di ñaanal pour que phase nationale yi vraiment coupe bi comme ni ko fi waa jaxaw téye woon waa juboo téyewaat ko fi Grand Thiès mu ko téye woon ñu nit ñu ko fi yaakaar naa loolu lañ leen di ñaanal loolu lañ bëgg aussi ñu am yaakaar naa ni enveloppe bi moo nekk nii président Ablaye Dieye moo leen ko jox euh, deux cent cinquante mille moo nekk ci biir mun mi daf leen koy jàppale pour que ngeen mën a def préparation boo xam ne joueurs yi ak supporters yi danañ am ci luñ jàpp pour mën a def phase nationale bu honorable je crois que ni suñu tournoi bi gënee commencé tournoi bi commencé ñu gën a jëm ci kanam ah ñu ñaanaat rek mu dolliwaat encore affaire bi gën a neex parce que dañu bëgg vraiment coupe bi des fi quoi beneen bi mooy ñun suñu souhait mooy vraiment lépp loo xam ni day waa Sénégal dañ koy xëccoo suñu sañoon waa Thiès ñoo koy jal donc ñu ngi leen di xaar final ba ànd ak yéen accompagner leen pour dem ak yéen finalu euh, phase nationale. gis nañ seen teewaay te man li ma gën a marqué rek ci ci ñëw bi mooy yëg bi ndax d'habitude ku lay dimbali dalay convaincre nga fekk ji ko mais le fait que ngeen déplacé wu ñëw ba ci ñun loolu wane na ni vraiment am ngeen yëg-yëg te sentir ngeen ni tamit li ngeen di def seen doomu dëkk ngeen koy defal ndax defe naa ne bu ay doomu Cees di xëccoo dara ak euh, yeneen réseau yu nekk biir Sénégal ñi dëkk biir Thiès bëgg a liggéey biir Thiès déplacé wu ñëw non seulement andi seen xalaat bu rafet ba pare andi seen doole duñ def lu dul di ko di ci kontaan encore une fois de plus di leen remercier di xamal ni aussi boo leen demee ci président ngeen ko vraiment geste bi noble na ba pare kontaan nañ ci trop marqué nañu aussi te bon mën naa ne ay gor la ko sékkal aussi. ndax ñu dañoo nekk comme ni ko tondo Pa waxee rek dañoo nekk quartier bu soudé quartier ba nga xam ne xëy na bëri na ay ndaw mais ay ndaw yu am ambition ay ndaw yu xam na ñu bëgg ay ndaw yu xam tamit fu ñuy teg seen tànk xëy na nag xadar bi bari na ndax te nit sax boo bëggee dara faaw nga mu ànd xadar pour nga mën kaa am waaye bu weesoo loolu bëri na ñi nga xam ne ñu ngi fii ñu mën a doxal dëkk bi ba pare ñu mën a jàppale ñu bëgg a doxal dëkk bi ñu ngi fii kon loolu lañ amoon ci lu leen di wax di leen wax ni kontaan lañ ci geste bi vraiment ñu ngi ñaan yàlla aussi ñu dem ba comme ni nga ko waxee rek ñu dem ba final phase nationale bi ñu àndaat ko an andiwaat yeneen témoignage an jëlaat yeneen yeneen yeneen vidéo institut pour Thiès mën ko gis ñu xam ne doomu Thiès ànd nañ te doomu Thiès jubóo nañu. maaleykum waa mbooloo mi waa sama waa équipe laay wax sax parce que équipe bi mun naa ma ne ko bi ma nekkee am 17 ans laa ñëw ñuy togg ngiy defar équipe yi di togg ay ay ay kii añu nawetaan ba tey yàlla def nii ma am fi doom ba mu toll nii muy Maguette Diouf. mu ñëw yóbbu woon leen final nekk meilleur joueur départemental à Thiès def naa loolu war ngeen ba xam ndax histoire la caaci mi ba ma ñëwee moom laa fekkoon mu yor ko ma nekk ak moom mais dama fier pour ñëw tey représenté fii siggi jot na aaj fii ci instant parce que ndaw yi fi nekk ndaw yu jàmbaar lañu te damay ñaan yàlla ni ma leen gisee ni ngeen toog di regroupé ngeen dem ba phase finale ngeen indil ñu coupe bi ñu def ci leneen ak leneen te boo leen demee ba jëmmi jamono ngeen dugg ci match yi tolluwaat diggante dañuy ñëwaat rek ndax Ablaye nekkeew fi lu doomu cees nekkeew fi lu ndawu Thiès Thiès ko ñor moo tax ma sawar pour ñëw ànd ak sama équipe ñi nga xamante ne mooy responsable des jeunes de ma Sayar gay ablaay nag nee na man doomu cees lu mu ne ma dugal ci sama loxo amul ma sàmba amul kuy doomu Thiès rek loo ne ma dugal sama loxo équipe bi yàgg na ko accompagner moo tax nag nee na moo leen jox enveloppe bi di leen ko jàppale abalu deux cent cinquante mille la. ndax na li ko war moo leen ko jàppale. di leen ko jàppale. li rek. parce que yéen a ngi jëm ñaan yàlla ngeen ne phase finale. tolluwaat ci mu ñëwaat. jaay Ablaye Dieng. ah wax ci moom yéen naan samay wax ci moom dañ naan damaa bokk ak moom moo tax dañ naan damaa far mais xam naa leen lu ma leer am na lu muy mbëbët am na lu mu ci dëkk bii. te la may ñaan waa Hersent yi ñu taxaw fii hmm. Maître Diagne mii toog hmm. ànd ak Ablaye ñu jël mairie est bii man loolu ñaan waaye parce que tamit olof Ndiaye ne nit bii di la yóbbu bu hmm. taxaw dafa bàyyi Kaolack la commencé ak yéen Louga mu def ko defaat ko fii man Kaolack fii la ma fekk Maître Diagne ngi nii mboo maa ne président Grand Thiès ba bi ni final on mi ngi nii taxaw dëgg la ba ñuy jouer final maa jouer final kan mu jouer final sañor ñëw dugg noo stade bu ñu amee lu ñu ñu dimbali nag ñun ba ñuy nekk ay président ñu koy yaakaar ci ay ñun. Hmm. kon war nañ koo dimbali ñun tamit pour ëllëg bu seexoo leen ñu ah ñii kan maa la doon jàppale baal ma ko yokk ko. ku la jox deux cent cinquante yaakaar naa boo ko tegee ci dara mu jox la deux maa ngi ñaan nag li muy sumb. Hmm. pour am ko fii. Hmm. yàlla na met Diagne mii. Hmm. jàppale ko ci. ba mu nekk ak waa Hersent maa ngi leen di gërëm. amiin Abdoulaye Dieye c' est pas la première fois qu' il la main à la poche pour venir en soutien à l' ASC Defar Hersent loolu Abdoulaye Dieye yàgg na kaa def à chaque fois que ñu nekk ci compétition suñu ko woowee wala buñ ko woowul sax mu yëgal ko boppam dina jël ay mayo jël xaalisam ñëw jàppale ASC Defar Hersent et au delà. jàppale bi muy jàppale ASC defar Hersha man ak moom nous avons des relations tout à fait particulières parce que je crois que man bokk na ci rares politiciens yi nga xamante bi nii damay dem këram muy ñëw suma kër bërki dem rek la jógee suma kër ñëw ñu waxtaane fa lu lu yàgg loo xamante bi nii rek luy jëmal dëkk bi kanam la donc moom dafa nekk un un enfant des populaire comme ñun xam nga Lamine mu ngi wax ñu may gërëm des fois nit ñi di ma gërëm naan ma man maa def lii Hersha mais Hersha man dama jàpp fi nit def rek nga ko defal parce que ñun amuñu lu dul Hersha amuñu lu dul R100 donc investissement bi ñuy def ci nawetaan bi nawetaan doo ci doo ci gagné lu bëri mais investissement bi c'est tout simplement parce que l'ASC Defar les joueurs ñoom ñooy les ambassadeurs du quartier joueurs yi ñooy porter drapeau wu r donc bu équipe bi gañee day mel ni kartie bi moo gañee parce que nekk nañ ci quartier boo xam ni si un quartier qui est difficile bu metti la ñu nekk donc ASC bi bonheur boobu nga xam ni à travers ces mu ngi koy procurer les populations du quartier loolu moom moo waral suñu investissement ci quartier bi donc chaque année dañ daan nekk fii entraînement suba ba ngoon jot mais ren yàlla dafa def ñu affecté ma Tivaouane donc dama yéex a wàcc moo tax am na ci footballeur joueurs yoo xam ni sax maa ñoom minante wuñu mais on aura l'occasion bu ñu duggee en regroupement fermé parce que man phase nationale fu mu a am maag joueurs yi ñooy dëkk on aura l'occasion de faire avantage davantage connaissance gën a waxtaan ci yoo xamante ni yu bëri mais Aïda euh, Massaer Thiathy ñu ngi leen di euh, jox euh, ay envers le président Ablaye Dieye xam nañ mëbëtam te sa volonté a toujours été de fédérer le fils de Thiès pour que ñu travailler autour d'un projet commun pour le bien des populations thiessoises mëbët googu mu am nag ñun moom lañ moom lañ am te ñun am amuñu lenn loo xamante ni dañ koy yóotu te nekkul pour intérêt population yi dama jàpp ni bu ñu ko doon yóotu yàlla bu ñu ko yàlla may y a absolument rien qui pourra s'opposer à ce bu ko yàlla defee incha allah ñu ànd ñun ñëpp liggéey pour le bien des populations thiessoises donc na ñu bu baax parce que defu ko rek ci équipe football bi ah parce que je me rappelle que temps est passé rek le le jeune lutteur là Pambay bi muy bëre dañoo ñëw suma kër toog ma yëkkati lu ma am jox leen ñu ne ma dem nañ kër Ablaye Dieye mais mënuñu ko gis ma jël sama téléphone fi ma toog woo ko ni ko booy baa ngi nii toog dafay bëre te nee na ñëw na sa kër gisu la mun ma dinaa la yónnee sama participation te ni mu ko waxee noonu la ko defee il lui a envoyé une enveloppe ma yëkkati ko jox ko booy bi te bu ko neexoon mu bañ ko def donc loolu ku koy def c'est parce que kooku bëgg na sport bëgg na jàppale jeunes yi donc encore une fois na ñu ko remercier